docteur Mamadou Samba Hann maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. alors sa xel màcc lépp lu jëm ci wàllum koom-koom ñu gis nag ni màggalu Touba 2024 jàpp nañ ci lu toll ak 300 milliards ci chiffre d'affaires ana nan la ñu mën a jàngatee tey li mu mën a indi ci wàllum kom euh, muy xew-xew gu mag gi waaw xam nga maa ngi di fay d'abord. Euh, xam nga màggal Touba événement bu extraordinaire la donc ci événement yu gën yu gën a mag ci Sénégal la bokk euh, boo xamante ni day drainer foule yu bëree bëree bëri bëri parce que nit ñi dañuy jóge fépp ci biir Sénégal mm-hmm. di ñëw vers Touba nit ñi di ñuy jógee fépp un ci Afrique un peu fépp tam ci monde bi di ñëw Touba donc euh, événement bu extraordinaire la donc c' est évident que ñu gis ni nit ñi ñuy dem économie day ànd ak ñoom parce que foog ñu lekk foog ñu naan foog ñu am fu ñu dëkk foog ñu jënd yëre yi ñuy sol jënd yooyu yëpp loolu yëpp nag man financière bu extraordinaire la donc du bert kenn ñu wax ni que milliards yi nii yëpp yu muy génnee ci période boobu lu lu ko mën a justifier la ndax événement bi dafa rëy tey li muy jël ci nit ñu ngi wax di tolloog juróom benn million ci nit a ngi fa sans compter yeneen activité connexe yi nekk tout autour de ça donc c'est évident que ñu gis ci xaalis bu bëri boobu yëpp muy drainer ci période boobu mhm. mu mel ni bokk na ci li mën a créer ay emploi xëyum ndaw ñi rawatina waaw gis nga événement la boo xamante ni parce que boo sekkee yu mel noonu événement yi mel nii entreprise yi dañ ciy profité parce que euh, ngi ci ëpp ci entreprise yi da ngay gis 40 pour cent presque seen chiffre d'affaires ñu ngi koy def ci événement donc Touba dafa di événement boo xamante ni seen cible yëpp ñu ngi ci donc dañuy ñëw profité si ci événement bi jaay seen i kii def promotion seen activité pour que ñu gañee xaalis bu bëri ñooñu nag ñoo ci gën a ñëw parce que dinañu mën a pérenniser seen activité ba pare gagné mais en tant que création de d'emploi boo xamante ni dafa pérenne loolu lu ñu war a mun a taxawaat xoolaat ko organiser ko pour que mu mun a am mais pour le moment ni mu demee nii créé wul ay emploi yu pérenne nii ñëw rek créer emploi pérenniser ko pendant très longtemps hmm. loolu pour le moment demaguñu foofu mais ci lu ñu mun a dem la ci foofu lañu ñu war a xalaatee nag parce que ci foofu lay amee njëriñ bu gën a gën a gën gën a bëri am na njëriñ nii mais mun na gën a am njëriñ buñ ci toogee xalaat foog tam ci zone sens boobu. alors mu mel ni nag ci euh, màggalum Touba bi jënd ak jaay mi tamit dafa dox bu baax. waaw parce que comme ni ñuy wax rek gis nga fu nit ñi dajee loolu moo fay am nit ñi foog ñu lekk foog ñu naan foog ñu régler seen yenn besoin foog ñu jënd yenn activité foog ñu jënd foog ñu def yenn yi jënd seen crédit téléphone yooyu yëpp jënd ndox jënd loolu yëpp ce qui nag activité commerciale bi dafay dox activité commerciale dafay dox bu baax a baax a baax a baax a baax. parce que ñooñu ñëpp bu ñu ñëwee indi seen seen i activité di jaay mu am échange économie bi day dox xaalis bu bëri dafay génn ci loolu Mhm. alors ñu jàpp nag euh, lu euh, toll wala lu ëpp sax juróom benn million ci ay pèlerins yoo xamante ni daanaka tukkee nañ fu ne di ñëw quarante délégation yi tamit ñi nga xamante ni jógee nañ Europe tamit ñëw fii euh, ci Sénégal fekkee lii di màggalu Touba mu mel ni tourisme bi ñuy wootee di ko woowee tourisme religieux yi tamit dafay jouer rôle bu am solo ci koom-koomu réewu Sénégal. waaw parce que xam nga loolu ñu wax dëgg la parce que en fait comme ñu wax bu gis nga avi am na ñu bëri ñoom suñu suñu mbokk yi nekk à l'étranger période bi période bu sacré la ci ñoom donc ñoom ñu ci bëri dañ koy préparer donc ci période bi dañuy ñëw xaalis bu ñu amoon lu bëri dañ koy indi parce que xam nga ni ñu koy wax mburi yi dañoo dañu suñu mbokk sama mbokk dañu xër dañuy lii duñ ko fowee hmm. donc dinañ indi xaalis bu bëri dugal ko ci dëkk bi ñeneen ñi jóge feneen tam di ñëw genre pèlerinage ci ñoom donc bu ñuy ñëw tamit dañuy indi ay devises ci biir dëkk bi donc loolu yë boo ko dajalee xaalis bu bëri la buy jóge ci biti di dugg ci biir économie bu Sénégal te loolu loolu lu am njëriñ la pour économie parce que xaalis muy génn buy dugg moo gën xaalis buy génn voilà Mhm. alors lu toll 4728 euh, voyageurs yoo xamante ne ñoom itamit euh, daanaka dem ak euh, dikk bi dafay am solo lool rawatina ci chauffeur yi mu mel ni ñoom tamit seen biir dafay baax ci lu mel ni màggalu Tuba. waaw ñu ngi koy wax moom mooy six millions de nit bu ñuy débat fu ñuy bouger di dem feneen foog ñu am lu leen yóbbu donc te comme fu ñuy wax fépp la ñuy jógee ci biir Sénégal ci ci ci est ouest nord sud fépp la ñuy jógee di dem. donc euh, évidemment moyen de transport yi moom mooy oto yi leen di yóbbu dañ ciy profito parce que seen traite la période boobu la ñuy def ay déplacement yu extraordinaire parce que di nga gis mooy di ci ëpp sax gisoo accident yi ni muy bëree hmm. parce que ñuy bëri dañ ciy dem dinañ ci dem lu bëri yoon dem ñëwaat demaat jëlaat comme nit ñi ñi ngi fi besoin ba ngi fi demande bi mi ngi fi donc ñoom dañuy fexe ñu koy satisfaire au maximum possible boo ci seetee Dakar dem dëkk bii ci dugg man ci information yi ma am gis naa transporté nañu lu ëpp vingt cinq mille nit waaw lu lu loolu loolu lu am solo la ci société de walla ñi yore ci activité wu de transport yi seen seen seen seen seen business daf ci dox bu baax hmm. alors ñoo gis nag ne xew-xew yu mag yi est-ce que amul tamit yeneen activité yoo xamante ne ndaw ñi daañu ci mën a yëngu am ci dara loo xamante ni ah, daana mën a dugg seen poche waaw c'est que man ci foofu nag la ñu war a taxaw xalaat. ci nan la ñuy fexee ba structurer ko ba nga xamante ni moo ëpp njëriñ parce que mun nañ ci dugal euh, côté informatique créer ay plateforme yoo xamante ni dina tax yow loo soxla foo ko bëggee di nga ko xam noo ko koy amee mu amaale yeneen activité yoo xam ni dina la permettre mu jógee indil commodité ki koy jënd. ki ni commodité ki soxla lu mu munti doon foofu ci Touba ci période boobu donc loolu. mun nañu dugal ci biir euh, tëti les métiers nouveaux là mun nañu dugal tam ci l'intelligence artificielle nan lañ koy utiliser pour que mu créé waat yeneen activité yoo xamante ni dina dina am njëriñ économiquement ci ñooñu ak ci ñëpp hmm. waaw alors ñu gis nag ne am na ab projet koo xamante ne njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar fay bëgg na ci initier nag euh, ndaw ñi euh, muy wàllu mbay mi ana nan nga ko gisee waaw man je pense que loolu mooy ci levier bu gën a mun a développer Sénégal bu gën a mun a jëlee Sénégal ci fii yóbbu ko feneen fu am njariñ damay joxe rek par exemple boo jëlee Touba boo jëlee Touba ñaata milliers de nag ak euh, ay xar ay béy ay ginaar ak yooyu yëpp yi ciy dugg waaw li muy tekki moom mooy lan gis nga xam nga loolu boo seetee yëpp li ci ëpp dañuy dem jéggaane ñii dañuy dem ay Mauritanie ñii dem Mali ñu dem jëlee yu bari léegi nag boo créer foofu agriculture par exemple fexe ak élevage def ay ngandi ferme yoo xamante ni dinañu mun a defar dinañu mun a yar ay milliers et milliers de vaches dina tax dootuñu ti xaalis au lieu que ñuy jël di koy exporter ji feneen di koy importer ji di koy jéggaane feneen di koy indi suñu dëkk ñu koy ñëwaat si ba pare xale yi mun a toog ci chaîne de valeur bi fourragère yeeg yooyu yëpp nan lañ koy fexe développer ko ñoom ñu mun ko liggéey ñu mun ci liggéey mun a jël ci meew bi dafa ci ay industrie pour di laitière di di koy mun a jaay fii ak à l'extérieur ba pare ci yeneen produit yi ñuy defaraale yeneen yëpp pas que ci Touba rek ci Sénégal yëpp fépp foo xamante ne am na potentiel ñu def lu mel li di mel noonu ba pare créer chaine de valeur industrielle boo xamante ni ci biir bu ñu paree dañ koy transformer doo ko transformer mu lay indil da ngay commencer non seulement nga régler problème mu autosuffisance alimentaire mais doo yem ci loolu di nga dindi déficit commercial bi ñoo am change suñu balance commerciale bi nga xamante ni dafa déficitaire en balance commerciale excédentaire ah boobaa day indi richesse ci dëkk bi ba pare créer ay emploi yu bëri bëri bëri bëri bëri bëri loolu levier bu am solo la ci président li mu teg pour que mu développer le Sénégal mu jëlee Sénégal fii yóbbu ko fu gën a baax je pense que ci lu ñu war a taxaw la bu baax a baax a baax a baax a baax pour que mu amal njëriñ bu baax dëkk bi amal njëriñ ñeneen ñi. alors mais lan la ñu war a def euh, réellement ngir euh, loo xam te dina mën a sukkali comme que comme réewu Sénégal. moom mooy li may wax rek mooy levier yu bëri la hmm. levier yu bare bare bari bari mun nga ko ubbi levier service yi jël nañ ko mais doyul levier agriculture nag daf ñuy jox potentiel parce que comme li ñuy wax défi wu àdduna bi moom mooy nan la ñuy fexee ba dundal milliards yi milliards yi personnes yii nii c'est-à-dire que nit ñi foog ñu lekk fu ñu toog besoin bi dafa am te li ñu constaté ci monde bi moom mooy rareté wu produit yi dafay gën di bëri donc dëkk bu comment comprendre loolu fexe boo jëlee comme suñ dëkk bu mel ni Sénégal nga xamante ni ceeb dañ koy jéggaane fruit dañ koy jéggaane blé dañ koy jéggaane lépp dañ koy jéggaane léegi yow boo fexee ba loolu jéggaanee too ko da ngay dindi li tubaab li économie di wax destruction monétaire parce que dootoo jëlee ci sa xaalis di koy génne ci biti da ngay au contraire da ngay am xaalis buy tax yow ngay mën a jëlee xaalis ci biti di koy dugal ci sa dëkk donc mu développé sa dëkk yemul ci loolu boo ko transformé créer ay usine créer ay entreprise dafay jur koom-koom bu bëri bëri bëri bëri bëri bu bëri emploi yu bëri yàlla defaat ñu amaat li ñuy wax pétrole gaz pétrole gaz boo ko jëlee lim lay jënd mooy tax di nga am autosuffisance en énergie ba mun ko jaay à l'extérieur sans compter huit cent métiers yuy tourner ci biir pétrole gaz nga jël ko dugal ko ci investir ko ci benn structure économique bu dëgër ak industriel bu dëgër buy tax Sénégal jëm kanam mun a transformer li ñu soxla yëpp ñu mën ko am fi ba pare mun ci am ba mu bëri ñu mun ko jéggaane di koy joxe ci biti muy dugal xaalis bu bëri boo ko defee mu dindi chômage créer richesse ba indi baawaan euh, bu baax ci ci jàmm sénégalais yi. Hmm. docteur Mamadou Sambane jërëjëf may fàttali rek ne sa xel dafa màcc lépp lu jëm ci wàllum koom-koom ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf bu baax a baax.